waxee maa ngi tudd Cheikh Tidiane Gaye di euh, coordonnateur u FRAPP section bu Tivaouane Tivaouane nga xamante ni fa jëye ju mag ji ñu dëkkee wax boobu ba léegi euh, fala xewe xewee euh, ñun nag ginnaaw Linguère ginnaaw Kaolack ginnaaw Louga tey mu xewee Tivaouane ñu jàpp ni rekk doy na ñu jàppee ku ci nekk toog sa ruq di xeexal sa bopp wala di xeex li nga xamante ni danga jàpp ni rek yow la dal wala warul la dal keneen tey dañoo gis ni lii di problème mu santé problème la boo xamante ni Sénégal wërngal këpp ñun ñoo ko bokk ñun waa FRAPP ñu taxawal fële ci Tivaouane benn collectif boo xamante ni tey moo dajale ay mouvement citoyen yoo xamante ni yàgg nañu xeex ci lii nga xamante ni mooy santé parce que tamit ñu wax ko yàgg nañu gëstu yàgg nañu taxawu yàgg nañu xeexal personnel de santé mais aussi et surtout patients yi nga xamante ni tey ñoo nekk dans le département de Tivaouane damay fàttali ni lii xew Tivaouane du commune du Tivaouane rek la xew du waa commune de Tivaouane rek ñoo ci loru ñi ci loru ñi ngi ajuwoo ci 18 communes yoo nga xamante ni tey ñoo constitué le département de Tivaouane parce que yéen a ngi ciy dégg ay bébé yoo xamante ni ñi nga dëkk fii ba euh, euh, Kell ay bébé yi nga xamante ni ñi nga dëkk fii ba Mérina Dakar donc du Tivaouane rek ñoo ci loru Sénégal gépp ñoo am naqar ak tiis Sénégal gépp ñoo am naqar ak tiis moo tax collectif bii nga xamante ni moo juddoo Tivaouane bërki démb ñu ñëw sof ko ci collectif bi nga xamante ni ñoo ngi ko taxawaloon au niveau du Sénégal ñu koy woowee patient en danger parce que dañu jàpp ni rek à un problème national il faut essayer de trouver une solution door national loolu moo ñu andi tey ci ñu bokk taxawaay ak lii nga xamante ni mooy patient en danger au euh, euh, niveau national biñ ci waxtaanee ak ñoom boobu ba léegi ñoo ngi taxawal ay ndaje di taxawal ay waxtaan mu wara Euh, mu war a jóge mu war a jëm ci manifestation boo xamante ni ñoo ngi ko nara a organiser fële ca Tivaouane kañ vendredi incha allah de quinze heures à 19 heures et on espère que cette fois-ci du ñu ñu andil le préfet de du ñu andil problème mu parce que tout simplement xaw ma ñoom gii lu ñu wax mais ñun moom def nañu itinéraire bu leer naññ. <laughs> incha allah incha allah euh, leneen li mooy. dama ni di disjoncteur quinze mille francs lay jar interrupteur bu chéré ba cher soixante mille francs lay jar modulaire vingt cinq mille francs lay jar bu chéré ba cher yii ma leen limal mooy lii nga xamante ni génnee na ci enquête bu COSUEL def COSUEL di comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité def ko fële ci Tivaouane maanaam mooy ñett wala ñeenti dispositif yi nga xamante ni gis nañuy moom manqué ci seen enquête bu ñu def enquête boobu wane douze manquements yoo xamante ni am na ci installation boo xamante ni def nañ ko ca bâtiment bi nga xamante ni fa la service néonatologie bi jëyee ji xewee au niveau de l'hôpital de Tivaouane lan lañ ci jàngee ci loolu nga xamante ni enquête wane na ko ci lu leer nañ mooy amul fenn fu ñu tuddee ni lii infirmière moo ko def amul fenn fu ñu tuddee ni lii sage-femme moo ko def li gën ñu xam ko mooy que ni ay manquement la yoo xamante ni ci installation la jóge ci installation lan ci installation bâtiment kan moo def batiment bi lii nga xamante ni mooy marché bi tabax batiment bi kan moo ko doon joxe kan la ko jox ba mu ko joxee kooku mu ko jox est-ce que kooku moo ko def defu ko kan la ko jox pour mu defal ko ko ba ñu jógee ci loolu ñu jàpp ni ñun rek ci suñu xam-xam bu gàtt bâtiment bu ñu koy tabax yaa des normes yoo xamante daf ko war a respecter au niveau des installations électriques waxtaan nañu ci ak ñu nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci lu ni mel ñu xamal ñu ni bâtiment bu ñu koy tabax ci jubluwaay ba maanaam la nga ca jublu da nga koy sóoraale ca installation ba ngay def te dafa mel ni lii di service néo néonatologie lii mu soxla ci branchement lii mu soxla ci courant batiment boobu sóoraale wuñ ko ci. donc li ñu def ci ginnaaw mooy dañoo ñab ñabal pour brancher ay installation ci batiment boo xamante ni sóoraale wuñ ci woon boobu service ñu def ko kan moo ko def naka la ko defee ban xaalis la ko defee kañ la ko def ñan ñoo ko def je crois que c'est laa u doit être. orienter l'enquête bi nga xamante ni tey moom la procureur euh, de euh, de euh, de la région de Thiès wax ni ñi ngi koy taxawal ñun nag suñuy xel dafay commencer tey ci enquête bi fan la jëm